salaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk yi safo GP TV Sénégal amaan nañu mbégte bu baax a baax a baax a baax amaan contentement bu baax a baax tey ñu ngi fi tey ñu ngi fi ah, fi nga xamante ni mooy ah, Kër Bakar di waajal li nga xamante ni mooy marché bi nga xamante ni. moo war dox si diggante kë kër Bakar ak kër Ndioba match bi nag nee la match soog la match bi euh, waa Sénégal rawatina waa Tivaouane ñëpp doon xaal li nga xamante ni mooy match bi nga xamante ni moo war am si diggante ki nga xamante ni mooy kër Bakar ak kër Ndioba tey ñu ngi fii si fi nga xamante ni mooy kër Bakar ñoom fii nga xamante ni fii la joueurs yi nekk ngi waajal li nga xamante ni mooy match bi. mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci image bi rek buntu kër gi ngeen gis fi la kër gi nga xamante ni fi la ñu defee seen regroupement ñoom Zoey instant bi nag dugg nañu sànq xool leen waaye tey dikk nañu fi ngi bëgg a dugg si biir def fi reportage bu am am solo waaye ngi bëgg a waxtaan ak askanu Kër Bakar waaye ngi bëgg a waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy dirigeant yi waaye ngi bëgg waxtaan ak supporters yi waaye ngi waxtaan ak xale yi dañoo bëgg marché bi ñu ko si jàmm ko si salaam moo wala tey suñuy tànk non à la violence la ñu woote jàmm ak salaam fubal match bi match bi jeex ku nekk jël sa yoon dem ñibbi loolu moo doon suñuy tànk te moo ñu tax a jóg te moo tax ñu ñëw ba fi nga xamante ni mooy Kër bàkka ngi waxtaan ak askanu Kër Baaka bi yëpp ngir ñu xam ne daal match bi euh, foola kaf ak ree bu jeexee rek jeex na gis ngeen image yooyu si ginnaaw xam ngeen ni fu fu euh, xam ngeen nii fu match am euh, bu ñu regroupement gis ngeen xale yi ñi nga xamante ni noonu la ñuy duggee euh, si fi nga xamante ni mooy si kër gi tey waa kër Bakar ñëpp di waaj match bi nag ñëpp na dem stade stade bi na fees dell si diggante ki nga xamante ni mooy kër Bakar ay see kër Bakar ak ay see kër Njoba dinaa leen match bi du doon match bu yomb match dër bi la match bi faamu metti loolu tax tey GP ñëw ngir euh, waxtaan seeg waa kër Bakar ngir ñu xam ni match bi kaf foo ak la te aussi tamit jàllale message bi nga xamante ni moom la ñëpp bëgg ñu jàllale ko muy waa zone muy waa Tivaouane di ñëpp di ñuy ñëpp nag ah, di safoo képp koo xamante ni yaay safoo GP TV Sénégal bu baax a baax a baax gars yi da ngeen ñu topp rek ñu dugg si biir xool euh, ni nga xamante ni noonu la zoo yu toogee ak naka la ñuy waajal li nga xamante ni mooy match bi topp leen ñu gars yi ayca jërë ngeen jëf yéen ñi safoo GP TV Sénégal yéen a ko gis noonu ah ñu ngi fii si kër gi nga xamante ni fi la jooy di defee li nga xamante ni mooy regroupement bi ngir waajal li nga xamante ni mooy match bi dox si diggante ay see kër Bakar ak si diggante ay see euh, kër Ndioba doon match boo xamante ni <clears throat> nee naa la match bi la waaye nee naa la match la boo xamante ni waa Sénégal ñoo ko yaaxamti woon waa Thiar ñoo ko yaaxamti woon ñëpp a ko yaaxamti woon euh, ñu bàyyi la nga nuyoo présenté wax ni sax salaamaaleykum maa ngi nuyu di leen ziar di leen baal di am contentement ci li ngeen def vraiment lii waroon na am jamono bu ñuy fubal ñun kon dañu gën a motiver bu baax a baax parce que ñun fubal nañ Tiwaawan jël fa ay yoonu yoon meilleur buteur am nañ tur Tiwaawan lool xëy na yéen ñi nag du xam mais bari na ñoo xam ne Tiwaawan bu ñu génn automatiquement dañuy xam suñ tur équipe bi ñu fubal tey di ASC Juboo ginnaaw yàlla sama tur ci Tivaouane fu mu yegg rek football moom moo ko fa yeggale kon équipe boobu aw ma fayam passage coach Pam Ndiaye. match bu mag si diggante yéen ak Jubo match boo xamante ni match sog la ñëpp nga ko doon xaar ñëpp yaa xamti woon match bi ñoom tey naka ngeen préparé match bi bu la ñu dig si wala. non bi moom yàlla li nga xamante ni mooy war ci match ci côté physique. lu ci war def na ko ci ba mat sëkk amul lu des leneen la ci desit amul lu ci bàyyi lépp loo xamante ne rek war na ci mat def nañ ko ci mais tamit du passé mat dul mat ci biir terrain ba foofu lay commencé foofu lay yem ci biir terrain ba lay commencé foofu lay yem te lu mu doon joué ko ci fair play que le meilleur parce que kër Bakar kër Ndiob ba dafa yàgg dafa yàgg ñu ñi fi leen ko fekk. suñu ay grand frère ñoo ko jëkke woon musul ñaaw dañ daan rafetal ba lii am tey jii suñuy rakk ak suñuy doom ak suñuy jarbaat di ko fubal kon ñun fi ñu jaaran foofu lañu war a jaar fi ñu jaaran foofu la war a jaar parce que tam Kër Ndiobal dafa nekk équipe boo xamante ni vraiment équipe bu yàgg Tivaouane yàgg bàyyi yàgg bàyyi xel la dinaa ñu fay nekk ñu di fubal loolu dama xamoon bu baax a baax lan ngay wax euh, waa Kër Baka supporters yi xale yi joueurs yi lan ngeen di wax pour naka la ñu war a mën a demee stade ak naka la ñu mën a woote la ñu mën a wootee jàmm fubal ko ci jàmm euh, match bi jeex ci jàmm ki ki war a gañe gañe ñëpp ñibbi ci jàmm. waaw loolu mën naa ni depuis ñu jotee annonce ni Kër Jóob ba Kër Baka day fubal ñoo ngi ci ci la dox ba tey ji ni sànq bi may woote nii rek maa ngi ciy woote ci dirigeant Kër Jóob parce que ñun match boolewul dëkk moo ñu boole Kër Jóob dëkk moo ñu boole ak ñoom xale yi xale yi kër Ndiob xale kër Bakar ñoom ñëpp benn lañ ñoom ñëpp benn lañ parce que xale yi kër Ndiob ñoom ñooy déplacé wu kër Ndiob ñëw di fréquenté kër Bakar xale yi kër Bakar ñoom ñooy déplacé wu kër Bakar dem di fréquenté kër Ndiob kon benn 90 minutes bii rek wërta moo tax ñu am benn scandale boo xamante ne day parewaat ay blessé di ci am wala ñun foofu li ñu war nag suñu xale yi ak xale yi kër lépp def nañ ko dirigeant et ñoom Mamor ñoom Laman Mbaw Kasindooy dëkk Kër Ndiobba jibi xule di nga xamante ñoom dalay Kër Ndiobba ñoom li ko ñun suñu dinaay ne fi ay Iba sama grand boobu takku ci am ak euh, Ngagne Ndiaye li leen war lépp def nañ ko parce que ñun nga xamante ne ñun moom ñoom lañ dëkkal ñoom lañ nekkal boobu ba léegi ba démb bi ñu defee entraînement dañeel séance pare waxtaan na ak ñoom waxtaan ñoom lépp une santuñu leen violence bëgguñu violence. football bi ñun du ñun yéen li leen war mooy ngeen taxaw ci terrain bi loolu man supporter ci lu rafet xasloowun kenn waxloowun kenn lu ñaaw supporter lu mu gën a bëgg nañ loolu manqué ngeen laa ñu ñu wuti ko jox leen ci côté supporter côté supporter sport ñu boole ñaari ñu football que le meilleur gagne ñaari équipe bu ñu demee terrain ba bu ñu demee ba foofu ñoom ñoo fay daje football supporter yi foo leen taxaw di wax rek lañu man ñoom kon équipe bi ñoom it li nga xamante moom leen dëkk bi di xaare muy équipe bi kër Ndiobo muy équipe bi kër Bakar jom fulla li bandi gaay wax maam bu dëkk jàpp jom fulla fayda moom la ñuy xaare biir terrain bi équipe bi dañ koy wone amul foofu yombal te football nag lay doon rek ne jom fulla fayda maam bu jàll moom moo bari li koy wax. lan la lan la tey indaale tey lu muy yóbbaale instant. ndam lay yóbbaale Kër Baaka moom ndam dem jëli ndam day moom moom sama ancienne équipe tey moom damay dem jëli ndam ci kaw moom sama ancienne équipe moom vraiment <laughs> damay dem tey jëli équipe bi ci kaw sama grand yi ak sama maam yi ne foofu ak sama morom yi xamante ne ñoom ñoo doo kare basin yoon foofu laa ko bële tey moom damaa dem pour jël ndam seen kaw moom du neex nag non est ce que mën naa leen mën naa leen def deux rek bàyyi leen noonu parce que vraiment est ce que moom day dis si man nag na dis si man trop trop ndax équipe boo xamante ne ginnaaw yàlla foo taxawee tuwaan bu ne diwa ne rek am na ñoo xam ne ba ba léegi nii nii ma doxee néew nii dañu jàppale kër Njóobu laa dëkk ba léegi dañu jàppale kër Njóobu laa dëkk or que football moo fa ne dama fa nekkat rek football moo ñu boole woon ñoom kon kooku moom su ma koy dóor dama koy raay dama koy raay tànk rek <laughs> dama koy raay tànk deux rek incha allah kontaan na ci taxawaay bi aja sama cameraman gis ngeen ñoo ngi si préparation bi di préparer li nga xamante ni mooy marché bi marché bi wala dox si digganteeg ay see jubo ak ay see marché bi war a dox jubo ak ay see Kër Bakar ay ta mbër mbër si yaa nan la nan dem ne laay ñu xool ñu xool ñu xool ñu xool ñu xool ñu xool Zoé euh, kàddu yi nga xamante ni kii yëkkati na ko doon kenn si euh, dirigeant yi mu doon kàddu yoo xamante ni kàddu yoo rafet kàddu yoo xamante ni bon macha allah euh, asalaamaaleykum kan laa fi war a biraat waaye gaay gis ngeen euh, ni ko ni bi di defee di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy joueurs yi ngir bëgg euh, tey bu demee rek àndaala li nga xamante ni mooy mooy ndam gis ngeen noonu ñu toogee waxtaan bu am am solo discuter ak ñi nga xamante ni ngeen di mooy euh, coach bi dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni moo koy yëkkati jamono bi muy wax match bi yëpp daal li nga xamante ni moom si gën a intéressé mooy non à la kenn kenn kenn di fi euh, loo xamante ni jaaduwul wala dëppoo wut nga xamante ni moom la waa zone bëgg leen fàttali ba tey ñu ngi si ay si euh, kër Bakar li nga am solo course li nga xamante ni mooy course Suckerback moom lay yëkkati noonu ñi ñooy ASC Suckerback ñoo war a dajeeg ñi nga xamante ni mooy ASC Jubo match bi vingt heures lay tàmbali incha allah fële si stade municipal bu Tivaouane ñu woon ñëpp si stade bi sëñ bi ñu bàyyi la nga wax ñu tur beeg Matar Ndiaye. Matar Ndiaye waaw kër Bakar waaw jour kër Bakar waaw. wala. non dëkk waaw cent pour cent kër Bakar. waaw bon tey naka ngeen di préparé seen match bi nga xamante ni yéen ak jubóo. waaw donc ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi match bi moom comme match rek moom mënut a passé match quoi ñu ngi koy préparé comme ni ñu daa préparé yeneen match yi rek di ñaan suñu borom mu defal lu ci ndam. te xam ni maximum demee noonu mais ñu ñu ni footballal daanaka ñoo bokk lépp ñu nag waa juboo soo xool ñooy takkante ay jabar di demante ay ngénte di demalante lépp daal waaw di ñaan daal def ko ci fair play que le meilleur képp koo xamante ni gagne nga nga encouragé sa morom félicité ko waaw mu bañ am coow bañ a am fitna waaw loolu daal lañ ciy ñaan ndax tey ji képp koo xamante ni def ko naka su dul noonu yaay mujj dem seeti sa morom. waaw ndax ñun ñoo bokk lépp quoi waaw di ñaan nag ñun ñi yàlla may ñu ndam waaw ñun waa Kër Bakar loolu lañ bëgg. da leen a bëgg trop su ngeen duggee si terrain bi seen xool seen yëpp lu si nekk mooy ngeen gañe ngeen jël ndam li tey li ñu ñoom ñu gën a bëgg ñoom supporters yi mooy ngeen jël ndam li tey te ku dem jëli mën ngaa dem ñàkk mën ngaa dem am tey boo amoon lenn loo leen di wax ku ñaax leen ku ak lu mën ne xew rek ñu dal xam ni Tivaouane benn la ñoo ko bokk lan la. waaw d' comme ni nga ko waxee rek ñuy ñaax supporters yi ñu ànd ak dal xam na ni yéen a jën am ñoom tey jii bu mënoon a sol mooy ñoom ñoo koy sol waaye di leen wax ni gënuñu ñu ko bëgg ñun tamit ñu xam ñoo dugg si biir terrain waaw ñu ngi leen di ñaax daal ñu bañ indi benn violence quoi waaw ndax comme ni ma ko waxee rek ñun ñoo bokkul lépp quoi di ñaan supporters yi ñaan ñu ànd ak dal te xam ni football moom football dong la mun max bi mënut a passé max xëy na bi la nag moom du yomb. mais dër bi moom ñun joueurs yi daanaka ñoo koy ñoo koy jaayante suñu biir quoi di ñaan supporter ñu yëngal ci kaw ñun ñu yëngal ci suuf waaw loolu la ñuy ñaan daal. est que lu gën a tey tey moom lu bari leen indi moom. waaw mais duñ ko waxagul nii quoi <laughs> dañ koy nëbb mais ci kanam du raw yu bët quoi ci kanam dinañ xam ni ñun on est pour gagner quoi. oui ok ok jaajëf. ayca kos ñu bàyyi la nga nga présenté xaaral ma fomp sama kanam bu ñaaw ko rek yaa ngi kos présenté wu mbokk yi nga xam ne ñoo lay safoo GP TV Sénégal waa Ousmane Touré coach ASC Kër Bakar su est ce que man nga ñoo wax euh, seen diggante match bi nga xam ne moo dox seen diggante yéen ak juboo wàccaay bi nga xamante ni def nga ko si ak préparation bi ak fan ngeen si tollu jamono bi. waaw bon on s'est bien préparé quand même mais aussi il faut que nit ñi bañ a fàtte ni un match de football mënta dépasser match de football un match de football restera toujours un match de football donc match nawetaan la il nous suffit tout simplement ñu jël ko avec philosophie parce que du guerre du dara quoi. beneen bi mooy ñaari dëkk yi ay mbokk lañ ci lépp nag donc football waru leen a mën a séparer donc je damay euh, demander ñaari dëkk yëpp buñ ñëwee ñu football ko super fair play coow bañ am parce que c'est nous dans football bi rek moo ci mën a gañ déjà c'est un message que je tenais à lancer ñu xam ne football moom si ça ne peut pas regrouper euh, raison d'être am amul parce que man mii di wax ak yow kër Ndiob laa rek te pourtant maay entraîneur kër Bakar donc euh, football moo moo universel quoi dëkkul fenn donc nañ jàppante ñu football match bi ci fair play que le meilleur gagne voilà. en tant tey euh, confiance bi nga xamante ni am nga ko say joueurs instant bi ni toll nii ak tamit ndam li euh, yaakaar nga ni nga jëli tey ngay dem jëli ndam li ndaxte joueurs yi sax wax nañ tey dañuy dem jëli ndam li ñoom yow loo ñuy wax. waaw bon man moom dama benn philosophie match yëpp dama jàpp ni dama war a gagner léegi nag lay xew ca terrain ba yàlla rek a xam mais je me pour gagner le donc ñu ngi ñaan suñu borom mu may ñu ndam en tout cas lépp lu ñu waroon def côté technique tactique donc yëpp pare nañu pour dem affronter ji suñu adversaire et di ñaan suñu borom mu may ñu ndam voilà. la moo ñaax supporters yi. waaw li may terminer rek comme ni ma ko commencé rek moom la koy terminer ñu xam ne un match de football mënta weesu match de football te rayanteeg xiiroog ngaayoo jaru fi. parce que ay mbokk lañ ku fi gaañ sa moroom wala ku fi coow amee tamit après dañ koy régler rek àllam yàlla donc bala cee loolu yëpp di am te chaque fois bo match jeexee wala lépp jeex ñooy àndaat ñoom ñaar boo xoolee waa kër Ndiob ak waa kër Bakar ñooy ànd guddeeg bëccëg kon pour man match de football waru leen a séparer donc nañ dem terrain xumbal ko neexal ko football dans le terrain ki man ah wala ki yàlla may ndam mu jël après ñu tap def a tap amical ku nekk sargal sa moroom après ñu dem voilà. waaw bu si kanam ñu ngi lay xaar incha allah amul benn problème kon à tout aja jërë jox jëf yéen ñi safo GPTV Sénégal gis ngeen ko noonu comme ni ngeen ko déggee si kàddu yi noonu dañ koy dagg fii rek yamale ko fii dem fi nga xamante ni mooy ay seekal njob lépp nag li nga xamante ni moom si tax a jóg rek mooy woote non violence bañ coow am bañ xuloo am bañ xeex am bañ histoire am ñu football match yi si jàmm ak salaam moo ñu tax a jóg te moo tax ñuy ñuy sonn te moo tax euh, ñuy sonn te bu nag bu leen fàttee di abonné ak di bës cloche de notification ngi jot si yeneen information yëpp yëpp yëpp incha allah match bi yéen ñi nga xamante ni yéen ngi fii na ñëpp dem stade nag ñëpp ñëpp dem stade mais ñu toog fii nag xaar leen ko GP TV Sénégal en direct incha allah jërë ngeen jëf